mbokk julit yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu kàddu yi ñuy yëkkati li ko tax li ko waral mooy dafa am ay kàddu yu Ahmad Lo yëkkati jëmale ko ci al aqidatul ashariya xëy na mën naa am sax ba mu ko defee yàgg na ñu façon yéene gàgganti ko gàgganti itam ñi mu réeral gàggantiwaale itam ñi réeragul wala bokk yee ñi nelaw euh, leeral euh, abul xasan al ashari lan mooy mbiram ndax tudd na ko ci biir wax ji leeral itam ibnu kullaab abu muhammad moom itam lan mooy mbiram su ko defee damay tàmbali rek leeral ni euh, gis ngeen wahabiyuna yi liñ daan jame suufi yi yépp ci seen diggante ak seen sëriñ si ñoom seeni sëriñ ak seeni taalibe noonu la ñuy def wala nu ko wala lu ko gën a metti ndax ku ciy laaj sax dangay ngay tàyyee sa gimiñ maa ngi ci doon seetaan benn darsu bu mu doon def am ku koy laaj dafa mujj sax moom di laajaat gaa yi lu mu laaj lu lan la laaj ndax ndax mënul a dégg li mu wax ndax buñ toogee seen sëriñ si duñ duñ bëgg a ñeppi seen gémmiñ yi waaw dañuy mel ne ay looy yu muuma euh, defe naa mbokk mii di laaj di poser question bi nga xam ne moo laaj pour ñu leeralal ko ci al aqidatul ashariya bu ngeen ko dégloo daanaka laajam bi ko góor góorluwul sax doo ko dégg su ko defee ñu déglu laaj bi e, déglu réponse u Ahmad loo door a ñëw ci e, tont yi incha allah

Terminiła murty mihmad ibn mung akada to asalaya silenja akida melad nyari dan mu sen pak ñaara du sa ca xañu muy wasi yab mu la doon ñaan waaw dégg ngeen laaj bi léegi déglu leen tontu bi waa ji loo di tontu déglu leen tontu bi sunna والجماعة العقيدة الأشعرية مثلا تفارق آه، البدو بدو ليضا هاي تجاكل تمكن في تموين كبنتو وخنا نفعل كبنتو على أسماء والصفات من التوحيد أي خاين أشعرية عقيدة أهل السنة والجماعة نين لين تقل ولا بوك تقل كو لو غود غود لاي دون لي مو نون امول ndax إيه، dafa يونتي الله محمد صلى الله عليه وسلم مانام رسول الله محمد رسول الله نغبكو تاقلك محمد نبي الله نيار يوي كولن بغا تاقلي منو نيك نخ العقيده الاشعريه موي عقيده اهل السنه والجماعه موي باس باسو اهل السنه والجماعه كون نكا لنجي لك باس باسو اهل السنه والجماعه مانام نيار يو خمنه tur yaay ñaar waaye madmuun ba lenn la naka lañ leen di tàqale ak naka la nit di waxee ne loolu tàqale ga day gudd benn la te danañ ko leeral ci biir li ñuy leeral danañ leeral ne moom ci boppam li muy wax xamu ko ndax aqidatul ashariya mooy aqidatu ahli sunnati wal mu teg ca ne xam ngeen ne tawxid dafa séddale ko ci ay xaaj kan moo ko séddale xam nga maanaam ñoom ñoo indi seenu seddale séddale ko seen bopp ba pare taxaw fii naan nit ñi tawxid dafa séddale ko ci ay xaaj léegi li taxoon ñu séddale tawxid bi ñoom mi ngi bëgg a feeñ pour ñu mën a tàqale jullit ñi ne jullit bi yow yaa ngi wéetal yàlla waaye yow maanaam yow tawxidul rububiyya am waaye amoo tawxidul uluhiyya kon yow mushrik nga yow am nga tawxidul uluhiyya waye amoo tawxidul asmaai wa sifaati kon yow mushrik nga maanaam il faut ñoom ñoom ñoo ko séddale dagg ko seen ñett seen ñetti morso tawxid ci boppam ñoom ñoo ko dagg seen ñetti morso yoo xam ne léegi dañ naan la da ngay am tawxidul rububiya am tawxidul uluhiya am tawxidul asmaa wa sifaat kon léegi li mu wax ne xam ngeen ne tawxid dafa séddale ko ci ay xaaj ku ku ku ko séddale kan moo doon séddale tawxid man kay koku la bëggoon a xam turam mooy kan ñu wari ko kan moo séddale tawhid def ko ñetti morso kon lim jot a tontu ci tontu bu njëkk bi lépp rot na lépp daanu na na nga xam ne aqidatul ashariya mooy aqidatu ahli sunnati wal jamaa beneen tomb bu nekk ci loolu yi mu jot a waxagun mu wax ne tawhid dafa séddalikoo ci ci ay xaaj kan moo ko séddale ci ay xaaj kan moo ko séddale ci ay xaaj na tudd ki ko séddale ci ay xaaj légui nañ ko déglu déglu mu yeggale tontom ñu dajji wat ko dañ koy dajji bam jeex tak point par point incha allah tawxiidul uluhiya dafa am mu di wara gëm ne borom bi tabaraka wa taala kep moy ñu jamm tawhidul rububiyya am mu di ñu gëm ne borom bi tabaraka wa taala kep mo moy ci bind moy ci wërsëgal moy ci wopal moy ci ray moy ci dimbali moy ci wara ñaan kon ñaar yoy dañu daal dëppaloo beneen bi ci def nag mooy tawxiidul asmaa wa sifaat moo di nangul borom bi tabaraka wa taala li nga xam ne saxal na ko ci ay tur yoo xam ne daf ne ay turam la wala ay melokaan yoo xam ne nee na ay melokaanam la moo xam saxal gi dafa doon ci alquran wala dafa doon ci sunna pas-pasu ahlu sunna wal jamaa moo di lépp loo xam ne borom bi tabaraka wa taala wax na ci alquran wala ci làmmiñu yonentam ne turam la wala melokaanam la loolu dañuy saxal ne foofu turu borom dégg nga ko foofu moom séddale na ba jekkal comme li ma la doon wax léegi séddale na ba jekkal nee na tawxidul uluhiya dafa am tawxidul rububiya dafa am tawxidul asma wa sifaat dafa am yooyu muy wax yépp waxe ko ay cokkeeram nantiwul la eh, ndax wéetal yàlla wéetal yàlla rek la eh, yàlla kenn du ko daggat ay morso di wéetal genn wàll gi di ñàkk wéetal genn wàll ga ca des Euh, ki nga xam ne mooy ar rabb kooku mooy al ilah kooku mooy ki ràngoo melokaan ya tur ya kenn ke kon ar rabb mooy yàlla mooy borom bi waaye moo làmboo tur yi ndax yàlla ci boppam du séddalikoo du du euh, ay turoom nekk fee ay melokaanam nekk fee ak yàllaam nekk fee ak boroomam nekk fee loolu amul waaw loolu nitu biddaa yi mujj ñëw ci jamono rek di tàmbalee huitième siècle jëm si nii nyom ñoo sos loolu waye loolu amul yalla du lu ñuy xaaj loo xam dañ naan da ngay gëm yàllaam gi maanaam yàlla boo gëm gëm nga day mat moo nit ki buñ ko dugalee ci bàmmeelam liñ koy laaj mooy man rabbu gis nga baatu rabb boobu ñuy wax euh, baat ñuy wax mo lamb manam ar rububiyya dafa lamb al uluhiyya lambale al asma wa sifat kon fofu luy séddalikoo fofu amu ko motax nit ki buñ ko defé ci bamélam liñ koy laaj moy man rabbuk mais kenn duko laaj wa man ilahuk suñ ko ne man rabbuk mu ne allah rabbi ndax dañ ko laaj ne ko wa man ilahuk kan moy sa yàlla parce que kan moy sa borom moy kan moy sa yàlla duñ duñ wëlbatikuwaat di ko laajat wa man ilaahuka loolu duñ ko laaj wala ñu wëlbi ko di ko laaj na naan ka maa hiya maa hiya asmaullahi subhanahu wa taala wa sifatuhu loolu duñ ko ko laaj dañ koy laaj rek man rabbu ko lepp nekk ci li aju ci ngëm yàlla lépp mi ngi ci biir man rabbu ko li aju ci ngëm yàlla lépp mi ngi ci biir man rabbu ko loolu moo tax tawhid moom wéetal yàlla moom wéetal yàlla rek la mais yàlla kenn du ko dogot ay morso naan naa wéetal bii bii nangam nangam kon taqsim googu هدف بي مودون جيما تاخلا جولي لغي نك صفات ييغا خامنا يالا سخالال نكا بوبام ييب اشاعري سخال نانك امول لين لو خامنا يالا واخ نكا تي القران ولا يوننت بي واخ كي سنة اشاعري نياكا گم لولا لولا امول تي القران كون بو ني اهل السنه والجماعه تي موي نيغا خامنا دانيو گم ملوكان ني يالا سخالال بوبام كوكو موي اشاعري لان نيو ويد تي ملوكان ني يالا سخالال بوبام weddi wuñ ci dara mais buñ ne ahlu sunnati wal jamaati ñoom ñooy ñi séddale tawhid ci ñetti xaaj ñu ne du dëgg kañ la ahlu sunnati wal jamaa séddale tawhid def ko ñetti xaaj naan tawhidu rububiya ak uluhiya ak asma wa sifaat loolu kañ la loolu amul kon ñu continuer defe naa bu fekkee teewlu nañ li ñu wax bu baax danañ gis ne lii mu wax nii amul sax ay temps yu mu taxawee loolu màbb na léegi nañ continuer waat réponse bi dajjiwaat ko mu jeex alashariya bi ñëwee ñu saxal turi yàlla yi ak lenn ci melokaani suñu borom tabaraka wa taala yeneen yi ci def ñu taawil ko ñu ko kon seen juyoo ci gis boobu ci al sifaat al ashariya dañoo saxal juróom-ñaari sifaat moom juróom-ñaari melokaan ci melokaani suñu borom tabaraka wa taala am na yu ñu ciy tajale ci biir melokaan yooyu ba yóbbu ci ñaar fukk waaye juróom-ñaar yi mooy cosaan leneen lu weesu loolu la duñ ko saxal dañ koy dàq moo tax boo ñëwee ci wajaa arab ko da ngay gis waaw dégg nga noonu mu waxe maanaam loolu mooy achaira yi ñoom melokaanu yàlla yi am na yuñ ci dëggal yoo xam ne saxal nañ ko nangu ko mais am na ci yoo xam ne dañ koo tëwil maanaam dañ koo tëwil mooy firiwuñ ko ci zahiru baat bi mais dañ koo àbbal firi maanaam dañoo dañoo firiwaat baat bi ci beneen sens ndax wax ne zahir ba dëppoowul ak àq sunu borom subhanahu wa taala mu ne moo tax boo demee ba ci wa jaa rabbuka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa mu ne achaare yi dañ koo tëwil waxuñu ne yàlla dikk waaye dañoo wax ne leneen a dikk foofu mooy tomb bi ma dëgmal si achaare yi du ñoom ñoo njëkk a tëwil wa jaa rabbuka tëwile ko wa jaa amru rabbik loolu ñoom ki ñuy wooyee imaamu ahli sunnati ki ñu koy wooyee ki ñuy ki nga xam ne moom la wax imaamu ahli sunnati mooy ahmad ibnu hanbal ahmad ibnu hanbal ci boppam moo tëwil aaya bi ci noonu te danañ leen indilaat danañ leen indil ay amsila yu bare baree bari ci wàllu tëwil googu ndax ñoom wahabiyuuna yi dañoo wax ne wa jaa rabbuka maanaam yàlla ci boppam moo ñëw ne foofu loolu la aaya bi bëgg a wax firi aaya bi ci zahiru aaya bi ahmad ibnu hanbal ñëw tawil ko ñoom nag loolu dañu wax naan wérul nañ indi lu tax wérul nañ indi yan dalil lañ am ci ne wérul loolu boo demee ci al bidayatu wa nihaaya ibnu kathir ibnu kathir mi nga xam ne ñoom ci seeni sëriñ la bokk donte la dañoo lele ñu wuuteeg moom ci ay mbir yu bari ba ci tawil gi ñoom tafsiru ibnu kathir ànduñoo moom ndax ibnu kathir day tawil ashari la دافاي تاوين تا ابن كثير مومو طالب ابن تيميه لا واي بو ديمي تي البدايه والنهايه داغا فا فك اثر بوبي مو اندي احمد بن حنبل ميغا خامن نيوم وهابيون موم لا نيو موي امام اهل السنه والجماعه احمد بن حنبل مومي مو تاوين وجاء ربك كون سنه اشاعره اشاعره نيوم نيوكو تاوين داكور اشاعره دنجكاي تاوين waaye ana kan ci ahlu sunnati wal jamaa moo dul tawil loolu wala ahmadu ibnu hanbal léegi bokkatul ci ahlu sunnati wal jamaa ci kanam tuuti da nga gis ne ñu baree baree baree bari ci boroom xam-xam yi ci mufassiruuna yi ak muhaddisuuna yi ñu baree baree bari ci mantiq bi wahabiyuuna yi am da ngay gis ne danañ leen faxas génnee leen ci ahlu sunnati wal jamaa ndax bu ca kanamee da nga gis ne imam Bukhari day génn dootul bokk ibnu xajar day génn dootul bokk al imam annawawi day génn dootul bokk al saxaawi day génn dootul bokk al bayxuuni day génn dootul bokk zeynuddin al iraqi day génn dootul bokk ibnu kasir day génn dootul bokk al qurtubi dootul génn day day génn dootul bokk ci ahlu sunnati wal jamaati ak ñeneen ñoo xam ne danaa leen tudd ci kanam ndax tëwi la leen ci génnee te loolu ku ko def bokkoo ci ahlu sunnati wal jamaa ci mantiqu wahabi yu nay kon nañ ko bàyyi moom mu génne eh, ahmad ibnu hanbal ah su ko génne jéem a jël place am rek bu fekkee dana ko man moo tax ba ñëwee wajaa arab da gis ne dañ ko tawil ba demee wajaa arab ko mu wax ne sun borom tabaraka wa taala ci boppam mooy ñëw ñoom dañ koy jéem a tawil wax ne leneen ay ñëw jurul yàlla bu borom bi tabaraka wa taala waxee ne yadullahi maanaam loxo suñu borom tabaraka wa taala ñoom dañuy wax ne xudra kàttan lañ koy firé waaye duñ ko firé loxo ndax dañoo jàpp ne buñ nee loxo kon dañ koy nuroo léegi bindéef waaye fekk na loolu itam ñàkk a dégg la ndax buñ nee loxo borom bi tabaraka wa taala nu ne nuroo la loxo bindéef tey xudra mi ñu daw jëm am na ba tey waaye gëmal ne bokkalewu ko ak yàlla yàlla bokkalewu ko itam ak bindéef waaw dégg nga ko ba tey gis nga wajaa bu loolu leeral naa ko léegi wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa loolu ñëw naa ci léegi damay ñëw ci nee na bu ñëwee ci boo dee boo nee yadullahi dañ koy tawil li tax muy wax loolu moom dafa bëgg ñu firee ko loxo bi yàlla ndax moom li mu jàpp wala boog wahabiyu ne yi li jàpp mooy asaare yi dañuy bañ a nuróole yàlla ak mbindeef moo tax bu yàlla tuddee loxo ñu ne bu tuddee baatu yadd ñu ne ñu firee ko loxo ci zahiru baat bi ñu tuddee ko loxo ne loxo ne loxo la am xamuñu ne loxo ba mel waaye loxo la am achaara yi ñoom bu ñu ñëwee tawil ko ñu ne li tax ñu koy tawil dañ koy bañ a nuróolee mbindeef te pourtant al qudratu mooy kàttan yàlla am na kàttan mais mbindeef am na kàttan te nuróole wuñ ko comme ni ko ni mu ko waxee nii ci audio bii nii su ko defee ngeen déglu leeral yi bu baax a baax a baax gis nga bu dee ci wàllu tawil wàllu yadullahi bi mu wax comme comme moom du ab mufassir moom moom parce que deful tafsir mufassiruna yi yi nga xam ne ñoom lañ xam te bu njëkk ñu bind mufassiruna yi seen téere yaa ngi nii demal ci ab tabaraani yi ba xam nan la koy firee demal ci abu ishaq as-saalabi mooy borom al-kashf wal bayan an tafsir al-quran demal ci makki ibn abi talib borom al-hidaya ila bulugh al-hidaya demal ci ila bulughi al-ghaya demal ci abul hasan al-mawardi ci an-nukat wal uyun demal ci al-baghawi demal ci ibn al-jawzi fakhruddin ar-razi demal ci qurtubi demal ci al-baydawi demal ci ibn kathir demal ci ibn arafa demal ci as-suyuti demal ci muhammad ali as-sabuni borom safwat at-tafasir nga xool ñoom nu ñu firee yadullahi kooku bul tayel dalay jaral nga def baxsu nga seet ba xam ñoom li ñuy wax est-ce que téere tafsir yi bind nañ loolu moom na ma limal ci ay téere tafsir lim bu toll nii wala boo genn wàll lu toll nii boo xam ne ñoom dañuy firee yadd mu nekk benn jaarixa ñu ne yàlla daa amub loxo su ko defee ñoom ci loolu ñoom dañoo taggi siin suñu borom ñoom jëmmal nañ yàlla maanaam yaramal nañ ko ñoom yaramal nañ yàlla ci seen aqida boobu naka lañ ko yaramale waaw kay ñoom saxal nañ ne yàlla am na kanam mais comme que yàlla tuddul bopp moom dañ naan yàlla amul bopp waaye nag am na kanam kanam nga ay bët yu bari la am ndax nee na was naa il fulka bi ayunina ndax ñoom bët lañ koy firee waaw liggéeyal al ak gaal ci ci sunuy bët ñoom bi ayunina bët lañ koy firee parce que comme liñ la waxoon ne la yàlla am na loxo waaye loxoom nuróowul ak loxoom bindeef naka noonu bu yàlla ne bu bu nee bi ayunina dañ naan waaw am na bët waaye bëtam nuróowul ak bëtu bindeef léegi bu yàlla ne nasullaha fa nasiyahum bu boobaa kon dañ naan léegi yàlla dana fàtte waaye ni muy fàtte bokkul ak fàtte mbindeef ndax loolu lees na ko wax ñoom mantiq bi nga xam ne moom lañ jël di ci firee baat yi mantiq boobu ci boppam moo leen ràbbal ay buum yu dëgër yeewu leen ba ñu ne ngodd mu tàbbal leen ci kàmm kon aw yoon wu dëng lañ jël mais yoon wu dëng woowu li muy dëng-dëng boole nañ ko lamiñ wu rëy woo xam ne moom moo leen di waxal ne ñun ñooy ahlu sunnati wal jamaa diw mii day dund sunna ah diw mi commencé dund sunna ba léegi li may tooñ kenn ci ñoom rek ma ne waaye du ngeen dund farata lu tax sunna rek ngeen di dund lan moo tax du ngeen dund farata yàlla asaf ñu continuer tuuti mufassirun yooyu ma jot a lim ñépp nag ay achaira lañ ak lim bi lim bi lu leen ëpp fuuf yoo xam ne ay achaira lañ te ay mufassiruna lañ danaa ñëw ci muhaddisuuna yi ñi nga xam ne ay ay achaira lañ léegi nag ñii ñëpp ci mantiq bi ñu amee ñoom ñoom bokkatuñ ci ahlu sunnati wal jamaati ndax lan ndax dañoo taawil waaw ñoom dañoo taawil moo tax bokkatuñ dañoo taawil moo tax bokkatuñ mais léegi taawil boobu nga xam ne moo tax moo tax mu ne achaare yi saxaluñ melokaanu yàlla yi taawil googu as salafu saalih ñu bari dana leen ci génne ñu bari dana leen ci génnee su ko defee ñu ñëw ci ñooñu boo demee ci saxiixul buxaari baatu aaxidum bi naasiyatiha bi naasiyatiha buxaari yi mi ngi ko tërwil firee ko fii fii mulkihi wa sultaanihi yàlla téye ci aw jubbam maanaam amul lenn loo amul lenn lu mën a doon lu la yàlla téye ci aw jubbam ñoom loolu dañ koy firee ci zaahir bi wax na yàlla ci boppam moo jël loxam boobu yi muy wax ne am na ko ne nëq ci jubbu lu ne téye ci jubbu ba nga xam ne téye nii la noonu lañ ko firee al imam al buxaari moom ni mu ko firee mooy axidum bi naafiyatiha fi mulkihi wa sultanihi noonu la ko tawile léegi kon imam buxaari bokkatul ci ahlu sunnati wal jamaati xool tawil la fii di loolu doyul imam buxaari yi ñëwaat kullu cheyin halikun illa wajha mu mu mu tawilaat ko firee ko illa mulka illa ko te ñoom wajhu bi ñoom kanam lay firi ci ñoom kanam maam yàlla dafa am ak kanam am na ndëggu am na ndëggu am na kanam amul lupp nag ndax tudd ko ci ñoom waaye am na ndëggu am na bët amul nopp ndax tudd ko am na am na am na am na ay bët sax bët moom yu bari la ci am même loxo yu bari la ci am ndax yàlla jamu na loxo ci alquran wa samaa banaynaha bi aydin wa inna la musiun waaw ak yeneeni aaya kon foofu ñoom dañu dañu fee taji siim sunu borom taji siim gu yéeme yéeme yéeme waaye yemul foofu boo demee ci fathul bari da nga fekk ibnu xajar al asqalaani di wax ne al imaamul buxaari ci saxiihul buxaari mbooleem li muy indi ci garaayibu tafsir nee na lu ci nekk daf koy jële ca kat boroom fann ba maanaam ca ca seeni boroom ca ñaxam fann booba mu ne bu dee lu mel ne wàllu fiqhu daf koy jële ci ku mel ne al imam ashafii radiallahu anhu masalan mu ne bu dee lu jëm ci wàllu ilmul daf koy jële ci eh, abu muhammad ibnu kullaab abdullah ibnu said ibnu kullaab nee na ci moom la koy jëlee loolu ibnu xajar mi ngi ko wax ci xaaj bu njëkk bi ci ibnu ci fathul bari yi ci page deux cent quatre vingt léegi ibnu boobu xam nga waa ji wax wax la ni wax na la ni la euh, wax na wax la wax na la ni la al ashari yi ci ñetti xalal la jaar ci dundam loolu mu ngi ñëw ci kanam mais bu ñëwaatee ci loolu danaa leeral loolu pour wan la ne في الأشعري جلي عقيدام بتخ بوكل تي أهل السنة والجماعة فوفل الإمام البخاري جلي عقيدام تلول ابن حجر منك أمير المؤمنين تي حديث جلي عقيدام كون لغي فيم تولو ني بو نيو فخاسي با بار الاسلام بي جيخ تاك بارسك كانغام يي گنا ماند تي اهل السنه والجماعه وهابيون يي سين منطق بو دنگ بو بون بي گيني نان لين تي اهل السنه والجماعه بالنسبة للعقيدة الأشعرية يمكن أخبر شيء أبو الحسن الأشعري أبو الحسن الأشعري من أبو الحسن بالمقر وقد سأل سنة لبقر ويبني إمام أبو الحسن الأشعري بمرام بشيء أبو لم يكي أتاب بشي جفت مويكي المعتزلة لبقر ñinga xamne dañu أبو الحسن ci mbolam asma allah mbolam turi sun borom subhanahu wa ta'ala dañ ko wéddi won lolo dundu na ci ñen fukki دور بني وقت أبو علي الجبائي يروى يايم توالسي ياركو من أبو الحسن الأشعري موفقة تصفت المعتدل لما أبو موفق المعتدل بدون لكن ينفس أخ دور ولبس إسرائيل لم تجد النونة متخذ مناظرة اليوم بجن لم تجن من تسيش وقت يوقف أبو الله سعيد بن كلاب كوكا دي lenn ci melokaani sunu borom tabaraka wa taala abul xasan al ashari déglu ko yëg ni kii li muy wax moo gën a dëgër li almatasi la di wax mu daal di nangoo jële ci moom juróom-ñaari melokaan yooyu saxal juróom-ñaari sifaat yooyu daal di ko juyoo ak almatasi la ndax almatasi la duñ saxal benn sifa ñoom benn melokaan ci melokaan yàlla yi bi loolu amee diggante boobu li ñu tuddee al ashariya al kullaabiya muy li ñu askane ci ibnu kullaab moomu mom la abul hasan al asari doon dund ak diir bi deme ba daje ñi ñi tuddé al hanabila ñu ñi nek ci ngirum ahmad ibn hanbal te ñom ci wàllu pas-pas ni ci buntu ak sifaat aqidatu ahlu ci no jamaa la ñu yor mu mun naa ak ñom gis ne ñi def ndekete ni mo gëna a wér dafa ne taxal lenn ci ay tour li gëna wér mooy nga taxal lépp ñëw ci alquran ak sunna benn yoon وضح مطالب في ربيع الإبانة في أصول الديانة ليرى الجنين لجنة ويتبنت في الأسماء والصفات ما يلوك لو خلق احنا في القرآن السنة رجل فعل في مرحلة بابا تلي بند الإبانة تلي بند رسالة إلى أهل الصغر تلي بند يتم مقالات الإسلاميين بند نشبنان تيري بابا الإمام ذهب تبنى في سيره على النملاء دون واو ba léegi ñu ngi ci joyanti nguur si joyanti yi mu wax nii waaw dëgg la abul xasan al ashari ci mutazil mutazil yi la njëkkoon a nekk gannaaw ñeent fukki at mu jóge ca dajeeg abdullah ibnu said ibnu kullaab am iqtinaa ci moom ci rëyu bi mu am ndax abdullah ibnu said ibnu kullaab boobu mooy ki nga xam ne lépp lu aju ci ilmul kalaam ci saxiixul buxaari ibnu xajar wax na ci e, fatxul baari ne al buxaari mi ngi koy jële ci abdullahi moom yi nga xam ne waa ji saxal na ni mi ngi koy jële ci abdullahi moom nga xam ne waa ji moom jàpp na ne abdullahi ibnu said bokkul ci ahlu sunnati wal jamaa moo mais bokul ci ahlu sunnati wal jamaa lolu te koku aqidam ci la al imam al bukhari di tibbe defna kon al imam al bukhari momitam day daldi gennale ci ahlu sunnati wal jamaa comme ni nga xamne abul hasan al ashari ci waxi ngor ci bu don tuxul ci mazhab bobu momitam day génn ci ahlu sunnati wal jamaa léegi nak mom abul hasan al ashari wadi ji nee na bi mu dajeek xanaabila yi nee na ci la soppi yoonu abdullah ibnu said ibnu kullaab dal di ñëw ci ahlu sunnati wal jamaa loolu la wax mais lan moo tax bu demee ci siyaru alaami nubala mu fekk al imaamu zahabi wax ne abul hasan al ashari bi mu taalifee al ibaana nee na xanaabila yi nekkoon bagdaad yépp dañ ko weddi woon di ko contre am na ci ñoo xam ne sax dañ daan dañ daan digle ci xutba yi ñuy xutba di dal di dal abul hasan al ashari ndax li mu wax bokkul ak la ñu fas kon naka la abul hasan di toxoo ci seen mazhab bu doon ñoom la ñu fas muy seen fas fas loolu abul hasan dafa ñëw fekk si leen ci bàyyi la mu jële woon ci abdullah ibnu saïd ibnu kullab kon kay su bindee téere muy al ibaana ci loolu kon kay ñoom waruñu koo xas ci loolu wóoruñu koo rafdu ci loolu kon defe naa wax jooju màbb waaw wax jooju màbb te danañ gën a leeral ne loolu amul ndax ñoom ci seen aqida wahabiyun ñoom ci seen aqida saxal nañ ci ne yàlla am na xadd maanaam yàlla am na limite maanaam dafa am yemukaay ñu limité yàlla saxalal ko jiha nga xam ne dafa am boor bu mu féete saxalal ko jiha nga xam ne dafa am boor boo xam ne fa la nekk seet loolu loolu moom la moom la abul hasan al ashari dàq ci al ibaana kon al ibaana dafa safaanoo ak aqidatu wahabiyin léegi nag li ci def mooy ak loolu yëpp teewul al ibaana an usuli diyaana bari na ay madsuusaat bari na ay madsuusaat yuñ ci def waaw am na benn kenn ci boroom xam-xam yi ku koy wax dama jàppatul turam muy wax ni xëy suma suma man na am ma ko bala may jeexal waaye moom dafay wax ni bokku na ci li lay xamal ni am na ay mansuusa moy abu hanifa al ibana da fay dem bay egg ci diko tafsir te lolu musul la nek nekk aqida abul hasan al ashari di takfir kenn ci ay matu sunna lolu bokku ci li abul hasan al ashari di def kon loolu moom itam normalement leer na mooy al allaama al kawsari ci bi muy def dafa wax ne wa min garib tahrif ma dusta fi badi nusakh al ibana lil ash'ari kama dusta fiha ashiyaan ukhra waaw ci bi muy def taaliq ci al ixtilaaf fi lafz limni qutayba dafa wax ne bokk na ci li gën a tumuranke ci tahrif boo xam ne def nañ ko mooy sos yi nga xam ne rax nañ ko ci téeréb abul hasan al ashari bi ci al ibana comme ni nga xam ne dugal nañ ko yeneeni sos yu bare bare kon defe naa loolu bokk na ci liy leeral ne liy leeral ne lim wax ne lim wax ne abul hasan al ashari dafa jaar ci ñetti marxala benn bi mooy bi mu nekkee mu'tazili bi ci def mooy bi mu nekkee kullabi bi bi ci des mooy bi mu nekkee ci ahlu sunnati wal jamaa te xanaabila yi ñoo ko fa def loolu du dëgg te sax loolu weddiku na ci waxu ibnu taymiya sëriñu nguur sii di wax ahmad lo boo demee ci minhaaju sunna ci juróom-ñaareelu xaaj bi ci juróomeelu xaaj bi nga dem ci page deux cent soixante-sept da nga fa fekk lii ibnu taymiya di ko wax mu wax ne waqad darasa alkalaama ala abi ali aljuffaayi arbaina sana وكان ذكيا ثم إنه رجع عنهم وصنف في الرد عليهم ونظر في الصفات طريقة ابن كلاب لأنها أقرب إلى الحق والسنة من قولهم ولم يعرف غيرها أنا نعم، لولو لير لولو لير نخ لير النبي أبو الحسن نك معتزلي واي نين أبو الحسن جناو بمجوغي اعتزال غوغو dem ci at-tariqatu al-kullabiyya nee na Abul Hasan al-Ash'ari xamul weneen yoon wudul woowu kon waa ji li mu wax ne Abul Hasan al-Ash'ari dafa jóge ci al-aqidatu al-kullabiyya daal di dem ci lim tudde moom ahlu sunnati wal jamaa loolu Ibnu Taymiyya weddi na ko ci minhaaju sunnati nabawiyya te ngóor si bu doon gis ne lii ci minhaaj dana wakkiirlu ci yàlla fexe ba bañ a wax loolu ndax bañ a juuyoog sëriñam loolu lu wér la waaye ibnu taymiya sax yemul foofu yokk na ca ne fa innahu lam yakun xabiran bi sunnati wal xadis wa aqwali sahabati wa tabiina wa gayrihim wa tafsiri salafi lil quran wal ilmu bi sunnati al mahda innama yustafaadu min hada ibnu taymiya wax ne abul hasan al ashari ci boppam nekkul woon xabiir ci sunna ne du woon ku xam sunna nee na du woon ku xam xadis nee na du woon ku xam waxi sahaaba yi nee na du woon ku xam waxi taabicuuna yi ak ñeneen ñu dul ñoom nee na du woon ku xam waxi salaf ci ni ñuy tafsiré alquran te nee na xam loolu ci lañ mën a tabaxe aqida kon tey naka la naka la abul xasan al ashari di nekk ci ahlu sunnati wal jamaa gannaaw ba mu réeree yii yëpp ba noppi ci waxi ibnu taymiya kon benn waa ji dana dëggal boppam wala mu dëggal ibnu taymiya man dëggal naa ibnu taymiya ci lan كنا أبو الحسن الأشعري بمدجة أبو محمد عبد الله بن كل عبد الله بن سعيد بن كلاب بمدجة عقيدة بمجلة مهم مهم لو دقونا جيت ابن تيمية ودنا ابن تيمية كلم وحنا أبو الحسن الأشعري نكو خمرون سنة خمرون حديث خمرون وحو صحابي خمرون وحو تابعيني خمرون السلف نجي في القرآن لو ودنا gannaaw loolu nag Ahmad Lo moom la wax moom kenn waxaale wu ko kenn waxaale wu ko weddi kaa ma di ko daaj bi nii te lii mënu la indi lu ko gën a léegi benn mu dëggal Ibnu Taymiya ci ne Abul Hasan al Ashari mësu dugg ci ñoom li ñuy tuddee ahlu sunnati wal jamaa dugg wala mu weddi boppam maanaam day dëggal Ibnu Taymiya weddi boppam wala mu dëggal boppam weddi Ibnu Taymiya faw leen am ci borom bi tabaraka wa taala amut lenn loo xam ne nuróole na ko mbindeef ci sax tur yooyu wala melokaan yooyu mën naa dem ba bokkale ko ak tur yi ko tuddee la waaye nit ki sax buy dégg koy gis la waaye ndax day tax ñu ne déggum nit ak déggum yàlla ñoo bokk wala dégg gisub nit ak gisub yàlla ñooy bokk déedéet bokkuñ dara comme tabaraka wa taala bind nam soree ak kañu bind ñuy bindee na leneen loo xam ne jarul jarul ma koy indi ci waxam mooy li muy wax naan mazhabu malik amul woon soowu jant nangam nangam loolu du ay wax loolu eh, diine yonent bi sax amu fi woon bi yonent bi ñëwee la am diine lislaam ji nii ah, nekk fi woon yonent bi daa ñëw indi ko ñu yónni ko mu indi ko kooku moom loolu du ay wax waaw suuf si ngay gis nii nekk fi woon dara dag nekk kon ay mazhabu malik amul woon eh, soowu jant na loolu moo tax so loolu dagguma ko dugal ko parce que ko parce que loolu du ay wax loolu waxi naxas xandang la rek kon damay ñëw wax ci li nga xam ne moo am solo lim wax fii ci ne achaira yi dañuy bañ a nurale yàlla am mbindeef moo tax ñuy tawil sifaat yi te tawil googu ñuy tawil sifaat yi ñoog ibnu xajar ñoo ko ànd mi nga xam ne mooy amirul muminina ci ilmul xadis ñoog al imaamul buxaari ñoo ko ànd ñoog ibnu abbas ñoo ànd ñoog mujahid ñoo ànd دانك نوك مفسرون يب المحدثون يب نيو اندو دو لغي وا بي ناي رك نيو كاري سين يونو بيس بو خامن مومن لغي نك ليغا خامن مو لنت سي موم باسكو خامنا نه دافا لنت سي موم داف كو كومبراندر لي لنت سي موم لي مي واخ نه يالا سميع بصير دا نا ديغ دا نغيس دو مو ادم ايتام سميع بصير لا مانام دا نا ديغ دا نغيس مي ديغوك يالا اك غيسوك دوم ديغوك دوم ادم دو بن gisug yàlla ak gisug doomu aadama du benn waaw loolu d'accord loolu nag dafa bëgg ci mantiq boobu mu continuer ba bu tuddee loxo nga ne waaw yàlla am na loxo comme ni ko doomu aadama amee waaye loxo yi duñ benn nuroowuñ waaw lan moo tax du ànd ak ñun ba buñ tuddee nisiyaan fàtte nasullaha fa nasiyahum bu boobaa mu ne yàlla dana fàtte waaye waaye fàtte mbuuk la fàtte doomu adama lan moo tax du ànd ak ñun ci logique boobu kon yoon woowu mu jël noonu yoon wu gën lu góose la wu jënd jiitu la léegi na ñëw ñu leeral ko tuuti foofu gis nga melokaan yi nga xam ne nga xam ne du du sifaat ya melokaan yooyu asmaa yi kooku euh, mbindeef bi mën naa nekk mën naa nekk aji gis yàlla nekk aji gis mais duñ ko bokk mais bokkul ak mbindeef nga am dañ koo bind ci forme jox ko ay cër nga bëgg a jël cër yooyu am dal di koy jox yàlla moom dafa am cër yooyu su ko defee ku tawil sifa bi nga ne léegi gëmoo sifaat yëpp déedéet gëm nga ko kay da koo gëm ci ni ko ko tawile waaye weddi woo sifa bi weddi woo sifa bi loolu moo tax ñu bari ci waab yu ne damay jàpp ne dañoo gëmul ne majaas am na dañoo dañoo gëm ne dañoo gëmul ne majaaz am na mais il faut ñu leeral foofu tuuti mooy sunu borom dafay wax ne euh, maridtu falam taud nii yabna aadam maridtu falam taud nii yow doomu aadama bi man day woppoon naa te seet si ma yàlla dana wopp est-ce que foofu dañ naan yàlla kon euh, dana wopp ndax moo ko tuddal boppam saxalal na boppam wopp dana wopp waaye woppam bokkul ak suñuy wopp est loolu des na ko wax loolu kenn ko loolu kenn du ko wax waaw kon su ko defee su sama borom waxee na itam bi ko jàmbi ne waa naka laa lay naka laa lay seetee fa yow yaay rabbul alamin mu nekk sama jaam diw woppoon na te boo ko seeti woon danga ma fa fekk waaw ñu ne kon yàlla sharaana wopp jalan na ñu ne waaw kon léegi ba tey des na kon bu am jaam woppee yàlla day wopp waaye na jaam ba woppee ak na yàlla woppee dañ dul yem yàlla dina feebar dafa naa foofu rek bu doon xalaat nañ ci danañ gindeeku xam ne yoon wi nga xam ne moom la jël ci ne yàlla basir la samia la doomu aadama itam noonu te yàlla ak doomu aadama nurale wuñ ko daf ko bëgg a continuer ci sifaat yépp te fekk loolu boo ko defee du dem loolu bu ko defee du dem moo tax ñu bëgg koo indil ay am amsi la ci tawil yoo xam ne borom xam-xam yi jiitu woon def nañ ko ki may njëkk a tudd mooy Saïd ibnu Jubayr سعيد بن جبير تأويلنا الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض الكرسي بيغا خامني وهابي نيوم شيز رك لاي كيفري مي بو نيمون ديكو فري شيز ني لا لولاي سين ديغ مي داني تاري كوكو فري نودو نون سعيد بن جبير تفسيرنا بات بي الكرسي متأويل كو انديكا سي العلم وسع كرسيه السماوات والارض من علمه wasi'a ilmuhu samawati wal ard mu tëwil ko ci xam-xam te loolu mi ngi ci sahihul buxaari loolu mi ngi ci sahihul buxaari mais da nga jàpp ne buxaari ci boppam dafa weddi loolu yi Saïd ibnu Jubayri def léegi kon ci seen mantiq Saïd ibnu Jubayri bokkutul ci ahlu sunnati wal jamaati mujahid al mufassir al xasanul basri ñoom itam tawil nañ fa aynama tuwallu fa samma wajhu llah ñoom dañ ko tawila qiblatullah fa aynama tuwallu fa samma qiblatullah wahabi yu ne ñoom dañoo bëgg rek nga piree ko rek fu ngeen mën di jëm kanam ak yàllaa ngi foofu te bul fàtte ne bi sunu borom waxee ne léppay alku illa wajhu illa wajhahu nga xam ne wajhum ba rek moo dul alku te ñoom saxal saxalaloon nañu yàlla ne am na xadam yàlla am na xadam wax nañ ne yàlla am na yedd te yàlla waj كل شيء هالك الا وجهه لا لا لين فرق لين كون نوني ديف لوخو لوخو بيني وخون نا لوخو موم دافو ناخ داي الف اند اك واي الف نا تانك با داي الف ولا اند واي الف ييل با نون ولا كون ديفنا نيوم فينو دوبو امول تل فين دوبو ني ني امول تل كون مجاهد تاويلنا الحسن البصري تاويلنا سعيد بن جبير تأويلنا الإمام البخاري تأويلنا منصور بن المعتمر تأويلنا عطاء بن مسلم الخراساني تأويلنا بو دمي ci bi ay بنيناها بأيد تأويلنا كو تأويل جامع البيان عن تأويل القرآن بو دمي سفيان الثوري تأويلنا أينما كنتم تأويلنا كو boo demee ci al asma wa sifaat pour bayhaqi al imaamul bayhaqi tawil na jaafaru sadiq tawil na naka noonu ibnu xibbaan tawil na dahika allahu min rajulayni ibnu xajar tawil ko ci rida buxaari tawil ko ci rahma ibnu xibbaan tawil ko ci dahaka allahu malaikatahu bal yadaahu mabsuutataani ibnu kathir tawil na ko ci alwaasiu alfadl الجزيل العطاء الترمذي تأويلنا تي يأتي القرآن من يأتي ثواب القرآن الترمذي تأويلنا إيه، ابن ابن كثير تأويلنا يداه مبسوطتان نيوم نين بوك كفيري نون رك موي يداه نياري لوخو يالا يا مبسوطتان دا فتال بو نياي نيوم دا لين يالا لا نياري لوخو يو خا دا فتال بو سمينا لولو كو دافاي سين tafsir yu dëng yi ñuy tafsir nii naan yàlla dafa am ñaari loxo yu tàllalu ñaay yi te ma bu suutataani tàllalu lay firi bu dee lugatan te ci ñoom nanguwuñ ku ko tëlluñ mooy kon yadaahu ñaari loxo ñaari loxo ya ma bu suutataani dañoo tàllalu ñaay seen firi firi dëng dëng moomu wala boog seen firi yu dëng yooyu boo daf may bu di firi xilaasu zahab te mënu ko ba mu yeggee ci qul taarikun xamsatal ajmaali jaariyatan eh, sayfan kada wariqan maa qit'atil ganam bi muy firi loolu fekk foofu Seydil Xaaji Maalik dafay wax yonent bi lim ne ci ay waajuram waaw mu ne qul taarikun xamsatal ajmaali bàyyi maanaam woy juróom abdullah bàyyil na ko fa juróomi gëléem jaariyatan bàyyil ko fa ab jéebéer sayfan bàyyil ko fa jaasi wariqan bàyyil ko fi alal maa qitatil ganami bàyyil ko fi coggalu jur léegi nag kooko di ko firi te mënul di ko firi xam naa da firi comme ni wahabi yu nay di firi sifatullah mu ne waxal mu di firi nag mu wax ne xul waxal ne taarikun aji bàyyi moom abdullahi bàyyil na fi yonent bi xamsatal ajmaali juróomi gëléem jaariyatan yuy daw ah juróomi gëléem yuy daw bàyyil na nga fa sayfan mbooya sayfan jaasi mun a sayfan mbooya kasaa naka noonu wari xan ay xob bàyyil na nga ay xob maa qitaatil xanami ak dogu gàtt gis nga prix ni mu safe xorom te dëng noonu la prix wahabi yu ne ci sifaat yi dënge kon ñii ma la limal ñépp tawil nañ léegi laqad asmaata law naadayta xayyan walakin laa xayaata liman tunaadi kon man fi may jeexale rek dama lay jox ñaari liste dama lay limal ci mufassiruna yi te ñooñu limoon naa leen damay tàmbalee ci ahlul xadis ñi nga xam ne ay achaira lañ ñi nga xam ne ay achaira lañ ci mufassiruna yi ak ahlul xadis fiqhu nag su ma ci duggoon du jeex masalan achaira yi alaamul umma ñi nga xam ne ñooy kàngam ñi nga xam ne ñoom lañ xamee xam-xam ñi ci nekk ay achaira wala ñi nga xam ne dañoo jiitu abul hasan al ashari te seen pas-pas di pas-pas di abul hasan am ñooñu buñ leen doon lim duñ fi jóg kon dañ fiy nawet noor te ñooñu buñ bëggee génnee ñëpp ci ahlu sunnati wal jamaati as sunnatu wal jamaatu dootu fi amati masalan su ma commencé ci mufassiruna yi damay wax ne tabaraani ashari la أبو إسحاق الثعلبي أشعري له مكي بن أبي طالب أشعري له أبو الحسن الماوردي أشعري له البغوي أشعري له القرطبي أشعري له ابن عرفة أشعري له ابن الجوزي أشعري له البيضاوي أشعري له السيوطي أشعري له فخر الدين الرازي أشعري له ابن كثير أشعري له محمد علي الصابوني أشعري له بندمتي علم الحديث ابن حبان أشعري الدار قطني أشعري الحاكم النيسابوري أشعري أبو بكر البيهقي أشعري القاضي عياض أشعري ابن صلاح أشعري السيوطي أشعري جمال الدين المزي أشعري ابن بطال أشعري أمير المؤمنين في علم الحديث ابن حجر العسقلاني برم فتح الباري أشعري آه، شهاب الدين القسطلاني أشعري محي الدين النووي من خمنا مسلم أشعريلا محمد محمد بن عبد الرؤوف المناوي أشعريلا نور الدين الهيثمي أشعريلا زين الدين العراقي أشعريلا ولي الدين العراقي أشعريلا بدر الدين بن جماعة أشعريلا السخاوي الملا علي القاري أشعريلا البيقوني أشعريلا بودو جيتي فقه هنا بودو جيتي مذهب حنبل أحمد بن حنبل دوجي شافعي دوجي مالك ay achaira rek ngay gis maanaam achaira yi ñoom ñooy ahlu sunnati wal jamaati yaani al achaira wal maturidiya ñoom ñooy ahlu sunnati wal jamaati waaye lil asafi shadid wahaabi yore wahaabi yore yaa nga taxaw fële di coow nee na ñoom ñooy ahlu sunnati wal jamaa kon defe naa li ma bëggoon a leeral leer na bari na ay tomb yoo xam ne dama ko jëllu noonu sax bàyyi ko ndax tàyyi cee dugg waaye xam nañ ne aqidatul ashariya al aqidatul ashariya mooy aqida bi gën a wér te mooy aqidatu ahli sunnati wal jamaati te aqida bi mu amoon ba tax ñun ñi ko am ñu génnee ñu ci ahlu sunnati wal jamaati ñoom wahabiyu ne yi génnee ñu ci ñoom bu ñu leen bàyyee ci seen mantiq boobu amul benn borom xam-xam ci ñi nga xam yow kuy des ñépp dañuy génn ci ahlu sunnati wal jamaati wahabiyu ne yi kott nekk te ñoom xawaari yi lañ leen doon méngaleel ndax yonent bi dafa wax ne allahumma barik lana fi shaamina wa fi yamanina am ku ne ko wa fi najdina mu waxaat ne allahumma barik lana fi shaamina wa fi yamanina am ku ne ko fi najdina yonent bi ne ko najdu matlau qarni cheytan ne ko najd foofa la cheytaane di fëlle kuréel gii di alwahabiya gii wooyee seen bopp ahlu sunna ne ñoom sunna la ñuy dund ñi ci des bi daal la ñuy dund mooy kuréel mooy genn kuréel gi ñu xam ci àdduna bi nga xam ne ma nga juddoo naj di takfiir nit ñi rek di takfiir nit ñi te xamuñu ne ñoom xawaari ji lañ leen di méngale ñoom ñu bëgg a occupé palaasu ahli sunnati wal jamaati dal di dàq ji ci te naan ñun yëguñu woon ne sax ay wahaabi yoonu lañ te ñoo ko tey ñoo leen ñoo la gën a xam ne ñoom ñooy wahaabi yoonu lañ waaye dana am ah, man da yëguma woon ne wahaabi laa di kii